Euh, remercier kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ci jotaay bi di jiital nuyoo bi ki nga xam ne mooy doyen Habib Sy di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam ah, di leen jégalu bu baax a baax kon di bàyyi ñu wéyale liggéey bi jërë ngeen jëf. jërëjëf laxat ci leeral yi ñu indil comme yow mi euh, daam nga joxoon lëngéey mu lay woo fii mu jël parole mu def jàngatam. ah jërëjëf coordonnateur asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi maa ngi nuyu leaderu coalition Sonko président 2024 yëpp di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di nuyu journaliste yi di nuyu ñi nga xam ni ñoo ngi seetaan di wax ni tey gàcce gu rëy laa am te jàpp naa ni sénégalais yi seetaan yëpp am nañ gàcce sénégalais yi seetaan yëpp am nañ gàcce ndaxte comme ni ko ñëpp xame ni lii xew Sénégal ci jamono ji daan na am ay njombe yu fi am de mais ci jamono ji ñu toll ci période bii ñu toll jëm ci élection ci ñetti at yi nga xam ne moom lañ toll ak li fi xew képp kuy sénégalais liy xew des fois da nga siy am gàcce ndaxte ñun réewum Sénégal comme ni ko doyen Habib ubbee sànq ñun réewum teraanga lañu yàgg naa am adversité politique fii ci Sénégal yàgg nañoo dem ci élection fii ci Sénégal mais lii xew ci élection yi Sénégal yi ces dernières années depuis surtout 2019 ak léegi lii xew Sénégal mësuta am Sénégal lii nga xam ni moom la technicien yi démontré léegi nii ñu ci profité au nom de la coalition ñu féliciter leen nag parce que monsieur Sonko yow ak Isidore ak Laxaat li ngeen fi wone ngeen di ay xale parce que yéen ñëpp amagu leen ay bijaaw parce que technologie xale moo ko moom te ñoom bu ñu fàttalikoo tuuti dañ doon wax ni Pastef ay xale la àndal ñu dem tey comme ni ma ko waxee ba mag ñi sax ëpp doole xale yi ci biir Pastef waaye bu ñu xamee ni technologie. mbirum xale la ak xarañte waroon nañoo xam ni bu ñu lancé ni dañoo bëgg a def seen naa surtout que c'est pas la première fois ñu koy def su ñu bëggee invalider ay parrain wu Pastef waroon nañ koo def avec beaucoup d'intelligence parce que wolof yi dañ ni sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee moo lay jafe mais fan lañ mën a tëdd tëggee ndënd mi parce que lii mu démontré man jàpp naa ne ñi ko def ak ña leen ko defloo tey guddi gi duñu nelaw te sénégalais yëpp yëg ko adduna bi yëpp yëg ko parce que dañ ko projeté en direct ñëpp di ci teg seen bët lii gàcce la parce que bëgg nguur wala téye nguur warul warul warul jaral nit mu àgg fii conseil constitutionnel li ma jàpp mooy lii ñu leen démontrel mu leer nañ dinañ jël seen responsabilité parce que il y va de l'avenir de la nation deru justice Sénégal moo nekk en parce que nag foofa la ñuy saytoo parrain yi di xool yi baax ak yi baaxul kon suñu leen andilee ay preuve comme ñoom yoon la ñuy doxal ci réew mi jàpp naa ni lii war nañ cee def jàngat bi ñu ci war a def ndaxte ku xam Pastef nga xam ne même ba mu amaguloon doole dem ci élection dañoo gis ne dafa def parrainage bu set wecc tey la Pastef gën a am doole ku nekk di gis Sénégal li fi xew ak li xew bitim réew xam ne Sénégal Pastef mooy parti bi fi ëpp doole gën fee organiser ëpp ci ay ndaw ëpp ci ay xale yoo xam dañoo xarañ ci informatique ku xool bu ñu bëggee def dara en vingt quatre heures ni ñu koy réussir ak seen xarañte xam nga ni ñii boo dee dem ak ñoom ci mbirum technologie nga bëgg a tappale war ngaa wuti ñu aay ci tappale waaye waroo koo def ci ay surux suruxe léegi nag dañ ko surxo surxoo ba gis ni yéen nañ euh, candidat wu Pastef bañ ñu dem jël nu mu leen neexee ñu saboteeg ko daan ni ci ñeenti levier la ñuy sukkandiku pour invalider le parrainage donc de Bassirou Diomaye fay nga xam ni ñëpp set nañ ni bi mu démarré parrainage am la fiche 111 ci la parrainage bi presque doog a door dañoo démarré seen parrainage di jaay doole nangu ñoo jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am loolu xëy na nit ñi daan ci dégg dellu si biñ demee ba Ousmane Sonko gis ni mais ñii dinaa leen woon ni ñun même man mi am si may titulaire bi su ma demul man na maa jël sama second wan leen ni sama sama doole fu mu toll mu lancé parrainage bu Bassirou Diomaye Faye dëkk bi riir fépp ci région yi dans les villages dans les coins les plus reculés du Sénégal fépp ñu gis ni parrainage bi mu ngi takkarnaase te tey ñu gis ay candidats yu tekkiwul dara yu kenn xamul ñu taxaw di valider devant Pastef nan nga mën a xalaate koo xam ne kenn xamu ko wala ay candidats yoo xam si fu ñu dem ci mbedd mi kenn xamu leen amul benn dëkk bu ñu am ay section amul benn dëkk bu ñu am ku leen fa représenté man xam naa sax ay candidats yu nu parrainé yoo xam ne dem nañ ci dëkk di wut ku leen fa représenté ci biir parrainage bi kooka ñu bëgg ko valideel ay parrain ki nga xam ne moo gën a organiser ci parti yi muy Pastef ëppale fi ay nit ci fii ci Sénégal ak ci diaspora bi ñu taxaw ne matalul ay parrain loolu ñoom ñu koy def sax waroon nañoo xam ne bu ñu bëggee éliminer Bassirou Diomaye Faye war nañoo wut yeneen yoon yuñ jaar mais pas ci ay tappale kon lii lu leer naa ñi la liñ ci bëgg jàngat nag mooy lii nga xam ne moo am lu nu dut baaraam la wan na leen ni Pastef lépp lu muy def da koy organiser parce que ñi naan ex Pastef sax ku ci xëy bu waxul ci Pastef kenn du ko seetaan ñi naan ex Pastef suba ngoon ci xeex Pastef lañ nekk kon ñëpp xam nañ ni Pastef moo fi nekk dem ci élection nag yoo xam ni dangay wuti pexe pour ni Pastef du am candidat kooku mënul nekk boo jëlee diaspora bi ak fii ci Sénégal képp kuy wax dëgg xam nga ni Pastef moo yore majorité bi nga bëgg a dem ci élection yoo xam ni da ngay jël ay éléments de langage di ko wax waxloo ay nit naan leen Pastef sax ñoom duñu am candidat lu tax ba du am candidat ñoom dañoo moom réew mi ba Pastef du am candidat dañoo moom réew mi ba Ousmane Sonko nekk candidat dañoo moom réew mi ba la candidat de lante système bu ko neexee du ànd ak yeneen candidat dem comme ñoom système bi ni ñu amee seen yeneen candidat kon loolu mooy wax ji aujourd'hui dans cette élection il y a deux camps qui doivent s'affronter benn camp bi nag dafa ragal a ragal ba def yi mu def dañu ragal parce que lii wane na ne jaru ragal Ousmane Sonko ak lépp lu jege Ousmane Sonko réew mi nag réewum yoon la lay nekk parce que kenn du fi nekk du fi jaay doole. li ñu bëgg a wax yi ñu dégg ko waa diaspora bi dégg ko mooy lii ñu démontré dañ cee dut baaraam mu leer nañ ñi kenn mënu koo were werante amul lu ñu ciy laam laame kon nag comme leer na nañ ni ay pexe lañ def pour saboter la pare naa Pastef kon nag ñoom nañ jël seeni responsabilité ñoom conseil parce que duñ nangu benn régime nekk fi di jaay doole di imposer ku ko neex pour mu nekk candidat ak ku du nekk candidat kon lii nga xam ne moom lañ fi wax mooy ñoom depuis le début li ñu bëgg mooy Ousmane Sonko du bokk ci élection yi te teguñu ko fenn Ousmane Sonko décision de justice yépp da koo favorable biñ ko génnee ci fichier électoral bi ci jaay doole dafa dem jaar fa mu war a jaar Ziguinchor juge ba fa nag jël responsabilité dugalaat leen ko. kon Ousmane Sonko officiellement mi ngi ci biir fichier électoral bi comme officiellement mi ngi ci fichier électoral bi ñu dem bañ koo jox ay fiche de parrainage am mu dem xeex pour ñu jox ko ay fiche de parrainage am juge bu Dakar tamit ni wax na dëgg jox leen ko fiche de parrainage am parce que radiation bi jaarul yoon ñu dem defi pexe ba démb gis ngeen ni ñu def cour suprême daan ni léegi Ousmane Sonko donc ñoom dañoo jàpp ni Euh, lépp li nga xam ni moom la def defoon comme recours ñoom neenal nañ ko alors que dafa posé woon loolu avocat yi daan ci dellusi lu ñuy tuddee exception d'inconstitutionnalité mooy article 260 du code pénal méngoowul ak li constitution bi wax ñu xam ko te cour suprême amul droit di apprécier l'exception d'inconstitutionnalité daf ko war a jëkkal jébbal conseil constitutionnel mu àtte mu bañ ko def jaay doole démb loolu ngeen gis li nga xam ne moom moo am tey conseil constitutionnel ñëpp gis na ni jaarul yoon parce que dugguñ ci biir dossier wu Ousmane Sonko pour xool ni li ñuy wax ne ay pièces yu ko manqué la lay tax mu waroon ko am administration bu Sénégal lënkaloo ak régime bi fi nekk ñoom ñoo ko xañ te andi na les preuves donc de la diligence utile bi tax moom bi mu demee moom ak euh, mandataire am ak parfois même avocat bi dañ ko ko bañal kon conseil constitutionnel wërta def une appréciation aussi simpliste de l'affaire daal ni non xool nañ pièces yi am na benn pièce bu manqué wala am na ñaari pièces yu manqué daal taxaw daal di rejeter affaire bi teguñu ko fenn liy dëgg mooy Ousmane Sonko est candidat conseil constitutionnel na teg mbir mi ci yoon Ousmane Sonko mënuñu apprécier dossier am comme ni ñu apprécier ñeneen ñi parce que moom rek kot moo ci nekk ci candidat yi koo xam ne moom dossier dafa am contentieux. te contentieux boobu dafa am loo xam ne moom justice su Sénégal moo ko ci jox dëgg administration bu Sénégal défier la justice sur instruction du président de la République et de son ministre de l'Intérieur lii mooy dëgg kon nag li ñu xaar ci conseil constitutionnel mooy mu appliquer la jurisprudence bi mu sa am en 1998 y a une jurisprudence bu ma yore nii muy la jurisprudence Insa Sankhare instant Sankhare lan la woon mooy conseil constitutionnel vous l'avez vu le document est là qu'on peut partager Insa Sankaré dañ doon dem élection le 3 avril 1998 mu dem di déposer caution booba du woon CDC comme tey booba trésorier trésorier général moom moo doon jël xaalis bi caution bi booba ci élection député tolloon ci 3 millions bi mu demee di ko déposer après 18 heures mu ñëw fekk ni trésor tëj na ay buntam alors que la loi disait minuit la ñu war a tëj léegi mu dem wuti huissier ni ko kaay constaté ko ñoom tëj nañ mu dem ministère de l'intérieur leen dem naa pour verser waaye tëj nañ ñun ko ñun suñu yoon nekku ci ndaxte xaalis bi trésor a ko war a jël mu bàyyi ba ca altine ja juróom-benni fan le 6 avril 2 1998 mu dem trésor versé 3 millions daal di jël quittance ban ko jox le numéro de la quittance est là bi mu versé xaalis bi ñu jox ko le numéro de la quittance numéro de quittance bi mi ngi nekkoon numéro 88 98 36 buy wane ni verse na xaalis bi muy caution bi les 3 millions au niveau des caisses du trésor mu jël numéro quittance bii la jël ak reçu ban ko jox numéro quittance boobu ñu ko jox moom la jël boole ak euh, PV de constat bi huissier bi defoon wax ne ñëw na avant ñuy tëj euh, euh, délai délai yi nga xam ne moom lañ fixé woon pour pour tëj Euh, dépôt de con euh, de cautionnement bi mu defee loolu yóbbu ko conseil constitutionnel dans sa séance du 15 avril 1998 le 15 avril 1998 le conseil constitutionnel réunir daal di jël pièces yi mu déposé naam déposé wu ko dans les délais mais dafa wax moom conseil constitutionnel ci décision bi nga xam si moom la rendre moom la conseil constitutionnel on était le 15 avril 1998 mu ni constatant que moom li nga xam ni moom am na ko retard ci versement bi la ko la ko waral jógewul ci moom c'est une défaillance c'est ça que dit euh, le conseil constitutionnel considérant que c'est une défaillance de l'administration pour laquelle son parti ne doit pas être pénalisé d'autant que l'exigence de l'attestation du dépôt de cautionnement délivré par le trésor trésorier général et la sanction de, de l'irrecevabilité résulte d'une modification toute récente du code électoral et le conseil déclare la liste du Rassemblement pour le progrès, la justice et le socialisme, la liste est recevable. mu ni kon nag dafa seetlu ni lii nga xam ni moom lañ teg mandataire liste bii en 1998 mu ne naam versé wu ko ci délai yi délai yi ba mu koy versé délai ba jàll na parce que al ajjuma la woon ñetti fan ci weeru avril ca minuit trésor tëj avant minuit dem ñoom agent yi trésorier dem ñibbi. moom mu ñëw war a verser ñu bañam ko ko mu dem daa dem verse ca altina ja altina juróom benn fan ba mu ko defee yóbbu ay këyitam wane loolu la ñuy wax les diligences utiles la am les preuves que moom li mu verse munu ko woon a versé àjjuma waaye altina la ko mënoon versé waa léegi léegi lan la conseil constitutionnel bii defoon loolu tey Ousmane Sonko pour les mêmes raison mu dem pour jëli ay fiches am de parrainage am ñu xañ ko ko parce que ca ba ñuy waajal parrainage bi dañoo wut ay numéro parce que lañ ca doon wut mooy Ousmane Sonko lañ bëggoon bloqué lépp dañ koo waajal pour que bu amul numéro mu defaree su boppam bu nuroog fiche yëpp parce que fiche Ousmane Sonko moom fii yëpp a nuroo lenn rek la amul mooy numéro parce que ñoo ko bañ a jox léegi bii loolu amee kon conseil constitutionnel amoon na toutes les preuves pour étudier le dossier de Ousmane Sonko te gëm nañ ñun ni conseil loolu lay def parce que comme nee nañ avocat yi Euh, comme nee nañ la mandataire de Bassirou Diomaye Faye non le mandataire de Ousmane Sonko du moins la la la le le maître Ciré Clédor liñ ko wax mooy dinañ ko jox les raisons parce que ba léegi waxuñu ko fan lañ sukkandiku ba mënuñu étudier parrainage am parce que parrainage am amul problème parce que ay député ñoo ko parrainé léegi na kon ñi ngi xaar conseil constitutionnel dugg ci fond dossier bi bu duggee ci fond fond dossier bi gis ni ñaari pièces yooyu ñuy wax ne amu ko am na ko parce que joxe na quittance ñoom ñoo ko jox la attestation bi am na preuve que ñoom ñoo bañ déposé na euh, li nga xam ne moom mooy euh, décision de justice yi ñaari décision de justice yi favorable à Ousmane Sonko wax nañ ko delloo ci fichier bi ba noppi jox na leen également le preuves que dell na pour jël attestation ñoom ñoo ko bañal à la CDC donc leer na ni kon Ousmane Sonko bu ñu ko tegee ci yoon day nekk candidat ci élection yi nu jëm le 25 février 2024 mbir mi nag mooy boo yoree sab candidat boo xam ne fu mu dem. day présenté wu ni maa ngi nii amadu Ba laa kenn xamu ko nga tiit ni mënoo koo gañe nga jafandu ci dossier contimence boo daanoon candidat bi ci mbirum Adji Sarr dem ba ci biir ñu ne la loolu yàqu na parce que la nga ko daanoon nërmeel na mënatoo cee jafandu ngay wut loo jafandu loo wut wut loo jafandu mënoo jafandu ci Ousmane Sonko ay fii ay ay ay pièces am kon Ousmane Sonko ay pièces am mat na conseil constitutionnel na jël ay responsabilités bañ a nangu benn nguur di ko not te jurisprudence bu ñu fi créé bu ëllëgee daan leen lim te dañ fay am ak njaboot. dañ fi am ay doom am fi ay sët. ëllëg ñu nar a lim seen maam ni moo fi defoon nangam en deux mille vingt vingt vingt quatre ba ñuy dem élection seen maam moo fi taxawoon invalidé ab candidat boo xam si askan yëpp moom lañ bëggoon mu nekk candidat. kon li ñu bëgg a wax mooy ñaari candidat yëpp muy Bassirou Diomaye Faye muy Ousmane Sonko amu ci kenn koo xam ni mën nañoo fexe ñoom régime bii fi nekk ba jaay ko doole ba du nekk candidat kon loolu lañ bëgg a wax Sénégal gépp ñu dégg ko wax ko diaspora bi yëpp ñu dégg ko ne leeral nañ lépp ni ci ay tappale ak ay njuuj njaaj lañ bëgg a jaare pour Ousmane Sonko du nekk candidat pour Bassirou Diomaye Faye du nekk candidat et ñun loolu duñ ko mës a nangu maintenant je crois en deux minutes je peux faire un petit résumé en français pour dire que nous aujourd'hui nous avons assisté à une démonstration avec des preuves, preuves palpables que le Conseil constitutionnel a reçu des, euh, des fiches de parrainage conformes avec une clé qui comportait des éléments conformes, mais ils se sont basés sur un fichier corrompu avec une clé où il y avait des données qui n'étaient pas conformes avec ce qui avait été déposé par le mandataire de, Ousmane, de, de bassir Diomaye Faye. Ils se sont sur des éléments qui ne sont pas conformes avec le fichier qui a été déposé, ça veut dire que le fichier a été corrompu. Et puisque le fichier a été corrompu, on ne peut pas éliminer un candidat sur cette base. Donc les 12 375 rejets qu'on qu appelle des rejets pour non-conformité basés sur numéro d'identification, les prénoms et noms ou les discriminants ça ne repose sur absolument rien que sur de la manipulation pour euh, de, manière des man manières sordides d'éliminer un adversaire. Donc, nous disons à la face du monde, aux Sénégalais, aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, les Sénégalais basés ici et dans la diaspora, et à la communauté internationale, que ce qui est en de se passer au Sénégal est inacceptable. Le parti le plus organisé, qui a les jeunes les plus rompus à la tâche, donc qui sont des chevronnés sur les outils informatiques viennent de démontrer la tricherie qui a été organisée au Conseil constitutionnel pour essayer d'écarter le candidat Bassirou Diomaye Faye et nous ne l'accepterons pas. Maintenant, nous demandons à la communauté internationale de recadrer le régime en place pour qu'ils comprennent que ces élections doivent être inclusives, libres et transparentes pour que les Sénégalais eux-mêmes choisissent leur prochain président de la République. Parce qu'ils savent qu'après avoir euh, soulever le dossier de, de, de, de, de l'accusation sur euh, euh, euh Adissar et aujourd'hui, il y a un anéantissement donc de, du jugement et ils savent que ce dossier maintenant est à volo. Maintenant, ils veulent s'arc-bouter et vraiment, ils veulent vraiment s'adosser sur euh, euh, une stratégie d'élimination des candidats à travers euh, pour Ousmane Sonko, ils veulent euh, ne pas étudier son dossier alors qu'il a déposé des pièces qui peuvent remplacer la fiche de parrainage qu'on refuse de lui donner et parce qu'il a été parrainé par 13 députés et le parrainage parlementaire existe au niveau de notre réglementation pour les élections. Également, pour Bassirou Diomaye Faye, il a déposé un nombre de parrains conformes parce que pour un candidat qui, lorsqu'on lançait le parrainage, n'avait pas encore son, son fichier Ousmane Sonko, il lance son numéro 2 pour montrer à la face du monde que le, le candidat majoritaire. Et son numéro 2, lorsqu'on a lancé son parrainage, c'est ce jour-là qu'on a compris que le parrainage commencé au Sénégal. Partout dans le pays, dans les villages les plus dans les villes, les gens appelaient pour parrainer. Donc ceux qui ont parrainé peuvent aujourd'hui avoir donné au moins 2 millions, 2 millions de parrains. Donc si on lui si on dit n'a même pas 45, 45 000 parrains, ça veut dire que ce n'est pas sérieux. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que Bassirou Diomaye Faye soit éliminé sur la base d'une tricherie. Et nous le disons clairement à la communauté internationale, nous le disons clairement au président Macky Sall, nous le disons clairement au président du Conseil constitutionnel pour qu'on laisse quand même le jeu électoral se dérouler, que le processus ne soit pas corrompu et qu'on aille aux élections et que les Sénégalais choisissent librement leur prochain président de la République, Inch'Allah, qui s'appellera, si on respecte la réglementation en vigueur, M. Ousmane Sonko, parce que c'est ça qui est dans le cœur des Sénégalais. Je vous remercie. Merci. <coughs> Euh, pour ces mots. Euh,